sëñ Aliou Cissé ahlu minam ñu ngi leen sant ci teewaay bi mën wax ne sëñ Atou moom ñëpp ñëpp la liggéeyal mm. tey nag ñu bëggoon ay kàddu bàyyee ko ci jëm ci jëm ju tedd jooju mm. euh, aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah ala kulli haal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, yéen bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi rawatina bokki Hizbut Tarqiyyah noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare ci turu daara yi ahlul minan ca njiit la di sëriñ Bassirou Xumma ak turu jëwriñu daara yi Dakar di Serigne Jabel Guèye ak mboolem bokki taalibe yi àndat rawatina sëñ Mor Sall mi nga xam ne moo jiite njàngum xasaayit ci biir daara yi ahlul minan noo ngi leen di jot li seenum nuyoo ak seenum ziyaar ak seenum njaal ci lii nga xam ne ñoo ko bokk noonu nga ko waxee kii fi jógee ñëpp la fi jógeel bari na kum dimbale te xamu la bari na kum dimbale te mosoo koo gis ndax pastéefam ak yitteem ak dégg sëriñ bi ak jàpp sëriñ bi muy dëgg ci moom ndax euh, lu mu am looloo ko ko may daa boolewul sëriñ bi ak dara looloo ko may mu mën a liggéey bay liggéey ci koo xam ne gisu kook bët euh, kon su fi jógee ñun ñëpp ñoo maasee mm, ñàkk waaye ñàkkuñu dara ndax dara demul fenn lépp ngi fi. benn sëñ aatu lañ doon wax fi ne fukki sëriñ aatoo ngi fi ci taxawaayam ak yitteem euh, ñoo ngi ñaan sunu borom gàttandu ko yërmande ak dimbalam dajale ko tawfiixi sëriñ bi biir ak biti nga xam ne moo ko taxoon a jóg di sant bu baax di dalal sunu xel ci loo xam ne teguñu ko ci daanu ci alquran lañ koy teg ak mbindum sëriñ bi xam nan bu wér ne day gën a baax day gën a dox day gën a sell ba faw loolu sëriñ bee ko wax def ne banaa liyal baaqi binaa an baaqiyaa bi xayri min loolu yoonu murit la ci namm ñu bari dañ ci ta joxañ abu tabax te tabax boobu day demee at ñu daane ko tabaxaat ko sëriñ bi yoon wi la wax ne du du du daanu lil ji naa ni nii nu ko gisee noonu la ñuy demee àjjana di am tawfiq bi ci des mooy alquran moo ne maanan sax min naayitin aw nun siha lu dul ne naati bi xayrin minha aw misliha yàlla sunu borom dafa wax ci alxuraan ne su ma dindee mbir kéemaan ci bërëb lu ko gën rek laa fay teg wala lu mel ni moom waaye lu yées sëriñ aatu du fi ñëw ku mel ni moom rek wala ku ko ku ko gën a ku ko gën a jekku liggéey bi waxuma ku ko gën ku ko gën a jekku liggéey bi loolu ci barkeem nga koy am ndax allazina amanu wattabaadum zuriyatuhum bi imaanin alhaqna bihim zuriyatihim ñi fii ñëw kéemaan gi ñuy def ñu ngi ko jëlee ci barkeem moom mi jiitu woon direct bi te alhamdulilahi rabbil na lay doon ñoo ngi ñaan nag sama borom mi nga xam ne dara tewu ko te euh, seytaane lu baax lay bañ lu sotti lay bañ lu am njëriñ lay bañ euh, dana jéem lu ne waaye fii amu fi amu fi kër amu fi amu fi pexe ndax euh, kim manal mooy kii dund ki jeex ci sëriñ bi dundatul nekkatul te moo mënalul sëriñ bi dara te yéen sëriñ bi ci ngeen jeex tàkk amatu leen dara doonatu leen dara xamatu leen dara sëriñ bi rek ci ngeen ne moo tax ñu rafet ci njort waaye kenn ku nekk bàyyi xel ci sa bopp ne yaa fi nekkal sëriñ bi ba dara du dara du yëngu gën a dox gën a gaaw rek loolu la ñëpp di xaar ñëpp la loolu la ñëpp di seenu sëriñ bi yàlla na ko def te defee ko nu kowe njort ci daraja sëriñ bi barkib Cheikh Mamadou Mountakha noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm dañu jaxasoo li nu bëgg wax mënuñu ko wax sant nañ yàlla bu baax sant leen bu baax gërëm leen bu baax di ñaan sama borom dolli ko tawfeex yi lépp lu jaamu bi yàlla jàng tey wala mu def ko yenn boole sama borom loolu lépp sotti ko ko ci darajaa Sëriñ Tuubaa te sàmm leen ginnaaw wa maa saalika an laa bi asiis asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu